Ousmane ak mboolem ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllum caada googe président na jublu ci seen i mbir de moo tax de ñoom laataa seen mbir sax di sotti de laal seen i de wàcc nañu de wane seen toogaayu naqar nag ak jamono mi salle a am lu a dem laa bi kaay moo tax dañoo xonq coy dem wàcc ci mbedd yeeg seenu mer moo xam rappeur musicien artiste ak mboolem mi bongamaan maanaam demu de kenn desul demu kay moom xam naa ne moom seen ndaje mi xew dàq ko ndax nag ay wooy kat doo nga fa daje ak i bongomaan ak ñi nga xam ne ñoo di riiti riiti ñëpp fa daje de démb saf na saf waaye de la doy waar rek la nga xam ne moo sooxeel mbir yee de mooy Youssou Ndour gisuñ ko fa de Wally Seck gisuñ ko fa de Pape Diouf Viviane ñoom ñëpp absenté démb bi ñu toog seen toogaani ñaxtu gisuñ leen de moo tax fi mu nekk nii de alank ni kaay ne artistes yi ña ngay yëglu dañoo sonn tàyyi damu dee ci toogaay gii nga xam daanaka toog nañ ab diir a sitting propriétaire de boîte ñoom ñëpp laa la wax ña nga woon ca daje ma kon de xumb na xumb na man may leen ma rek diirub ñaari fan président ne leen jox tont Fada Farid ni waaye ñun dañoo sonn taayi damu dee mënatuñoo nag laa la wax toog di sa ngéemuuf ñun dañuy liggéey ci ngor dañoo am dignité te it nag xel ak xalaat may ñu ñuy tàllal suñu loxo di ñaan yéen a wax dëgg de ma ne de moo tax présidente bu au conseil jal ak social di HCDS Innocence Tam Ndiaye la moom de dalal na seen xel de nee nag daana jéem a daje ak yooyu yëpp ngir nag mbir mi mën a dal ak dal yooyu buñ ci fàtte nag waa làmb ji ñoom it kenn demu ñu des ndax saison 2020 2021 bi bëgg nañ mu ubbeeku de bëgguñ mu tëju de moo tax Matar Ba ci sunu làmb dana dajek bira seen moom mii mooy njiitalu CNG dana am de gaaw bi ñu dëgmal bu fukki waxtu ak benn jotee loolee nag lépp ci làmb ji ak coronavirus bi ak nërmeel gi mu ko nërmeelal moo tax ci biir ba tey sunu làmb de kii di njiitalu amateur yi di ki nga di Pape Abdou a dem laa bi si ne jamono ñi dañoo di bëgg a muy bëgg a yóbbu jaaxal na bëri da le quotidien yéen mooy nag gan gu bon gi nga xamante kenn bëggatul dëkkoog moom dañ ne woon apprendre à vivre avec le virus waaye fi nekk nii nag dañoo sonn tàyyi damu dee bu ñu soñoon nag mu daan coow abal ñu waaye moo dëgër bopp kii bu ñu xamoon nees ko mën a jaare sax de sunguf ko reen ko mu jóge fii le quotidien yéen i la de fièvre dëgg la ci vaccin bi ndax ngir mën koo faj sax moo tax de lu ëpp waa ngi cay bëgg am de ndax nag lu ëpp ci téeméer ci Sénégal yoo xool laaj leen cinquante sept maanaam juróom fukk ak juróom-ñaar dañoo wax déed lank kandaaral ñoom kenn du leen vacciné <laughs> waaye de vaccin bi xaw ma dina am xaw ma du am xaw ma day gaaw xaw ma du gaaw waaye buñ gaawoon musiba naaru laay am suuf su aane nit ñiif kaa communautaire yaa ngi gën a law de daara jolof kenn ëppalewu leen ci laa la wax suuf su aane ci benn bés kocc am nañ fanweer ak ñetti cas 33 cas fukk ak benn ci benn fan 24 heures ma ne bilan a yéeme mooy ñi nga xam rek ñoo di malade asymptomatique yi ñi ko yore maanaam te xamuñ ko ñi nga wëndeelu ci mbedd yi nu mu leen neexee di daagu nu mu leen neexee e ma ne jamono ji amul benn njaboot buñ ci quarantaine cey lii ma ne njiitalu bokk moomeel bu Ndakaar ba woon Xalifa Ababacar Sall maa nga ca langue politique a jóge ca mbas ma ma ne vox populi ne de jamono ji fawul de kaful réewul ma ne Xalifa wane na ambition dëgg ak pas plateforme doy na fa la demoon demu de ne de li ñu tax a jug mooy nag boole doole yi maanaam boole bëgg-bëgg yi ngir nag espoir yaakaaru askan wi ñu bañ koo waggat yi xalifaay wax de waaye de wax ji de doy na ko sëkk moom Idrissa Seck tribune kaay ne Thierno Alassane Sall kàddu la yëkkate ne Sénégal bis bu amoon ñaar ñu mel ne Idrissa Seck laa la wax réew mi ci guuta lay dugg ma ne guuta kay mënul passé lii di xew ci réew bi l'observateur ne xoolal ma lii ma ne flash cas ci daara yi jamono ji doy na waat musiba naaru dëgg la ñu nemmeeku jamono ji ci bërëbu jàngukaay yi xoolal ma ay xale yoo jël nay sanction de jamono ji ay sanction la jël ngir nag teg ci ay daan sanction pénale ak administrative loolooy nag mooy dëgg monsieur ministre vox populi ne may ma ñëw xanaa booy wax sanction kay daa am fooy jiitu xoolal ma liire rek lu xale yi def rek ña ko gisee ci série de télévision yi vox populi ne mën na série de télévision yi ñi ngi wane seen influence mi ngi wane nag kon ñoom seen liggéey ba ma ngay jur njariñ ci ñoom moo tax ngir wa lëj mbataat mbir mii la fay yaataayi mbéyka xew doy na waar loolee jot na it ñu daal di koy régulariser teg ko ci yoon te sàkku na ci waa Sénégal ñu def ceen liggéey ñëw président nag lii danga cee yéex da ko koo waroon a gaaw a jël jël ay matuwaay laa la wax réew maa ngi bëgg a yàqu réew mi mi ngi bëgg a yàqu laa la wax ñu yendoog jàmm